Macky Sall xëy na am na ci responsabilité bu mag a mag a mag parce que nag euh, boo xoolee euh, ba ñu nee Ousmane Sonko en tout cas condamné nañu ko ci ñaari at yàlla xam na ni keroog palais de justice man euh, su ndeysaan suñu yenn conseil journaliste parce que bi ñu nee condamné na Ousmane Sonko ñaari atu kaso ñi ngi mënatuñoo taxaw ñi ngi taxaw mel na kuy jooy naan nañu gaaw ñibbi parce que xamoon nañu la suite xamoon nañu mhm. bi ñu ne condamné nañ Ousmane Sonko yàlla xam ne wallaahi azim yàlla moomu tiim ñi ngi taxaw ñenn ñi ngi taxaw di di di di a jooy fi ñu nekk ñenn ñëw am seen i naataango ji leen uh, dalal parce que xam nañu ni verdict bi wàcc après li ci topp du neex kon mhm. bu mag a mag kon ñoom xam nañu ni uh, condamné Ousmane Sonko ci mimi réew mënul jur jàmm xam nga koo xam ni yow da nga ko condamné. Mhm. te jëlagoo ko sax dugal ci kaso bi. Mhm. maanaam da nga ko rek condamné. ñuy lam-lame ndax da nga ko jàpp tëjëm doo ko jàpp mm-hmm. réew mi dugg fi mu dugg mais astamak kooku tey boo ko jëloon ni ko coppet dugal ko ci li nga xamante ni si nii moom mooy moom mooy euh, kaso bi te mm-hmm. démb seetaan nañu ñii di waa bureau politique bu Pastef mm-hmm. seen jano ak taskati xibaar xam ne def nañu ko ñoom dañu jàpp ni ki nga xam ni moom mooy Ousmane Sonko même bu ñu ko tëjul kaso dañu ko tabaxal kaso bu bees mooy bu nekk fële ci cité kër góor gi parce que dañu ko xañ muy dem di doxee li nga xam ne mooy soxla effectivement parce que presque fële moo kaso rek ñoom ñoo yem ah, te kaso sax lu mu bon bon bon mm-hmm. say avocat bu ñu bëggee gis xëy na dañu la gis mais la nga xam ni moom Ousmane Sonko ji nekkee jundu fële kër góor gi mais moo ko kaso rek ñoom ñoo yem kon tey effectivement moom euh, président de la république tey comme li ñu ko yàgg waxee rek man dama gëm ni li nga xam ni moom moo nekk di xew ci réew mi moom euh, ak doole gi ko suñu borom jox ak li ko suñu borom dénk su ko neexoon euh, tay tay tay lépp lépp lépp dakk euh, te li ko waral du lenn lu dul Ousmane Sonko bi nga xam ne en tout cas. pour le moment parce que nag xam nga ni ruumanaat ay reporté élection lu toll ci ñaari at ak nangam nangam te loolu dafa lay leer ka ni xam nga lii nii man nga ni. Mhm. Sénégal yu bare bari ñoom dañ ko def combat Ousmane Sonko ñoom euh, dañuy jàpp ni Ousmane Sonko xëy na moom ak ñi ay militant am ñoom ñoo am jafe-jafe ak yoon mais lu jëm ci mbirum ñetteelu mandat. ak lu jëm ci mbirum élection loolu su boobaa sénégalais yi yépp lay soxal moo tax président de la république Macky Sall ay la yeewoon segam lii nii ab benn parti Pastef. mën nga ni la la ko joteel ñoom ñu am doole mën a taga tembeel réew mi ni asamaak loo xam ni tey euh, bu ñu nee ko càpp mën nga ni Sénégal gi yëpp ñoom ñooy jug masaarloo kon mm-hmm. ñoom war nañu xam ni vraiment mm-hmm. euh, en tout cas instant bi sii ñi nga xam ni moom mooy nekk di nekk ci seen kanam yëpp dafay wane que ni ñoom seen nguur jeex na mm-hmm. euh, c'est fini gasi julli tubaab lenn rek moom moo leen dese mooy ñu fexee nu ñu génne ci grande porte bi très sincèrement mais la kulli ñoom à partir de 2024 parce que nag euh, reporté ay élection fii ci Sénégal ay élection présidentielle loolu gëw ma ni lu ñuy si lu Sénégalais di négocier la wala lu kenn di nangu la mhm. euh, moo tax euh, lépp lu ñu mën a def ñoom pour maintenir élection yi yoo xam ni ñi war a bokk ñëpp dañuy bokk en tout cas parce que man ba tey man loolu man la engagé dama gëm ni Ousmane Sonko ni ñu ko écarté ci élection yi vraiment lu ñu war a xoolaat la mhm. Euh, parce que euh, li ñu ko doon topp muy viol euh, yoon nee na dara amu ci. Mhm. kon corruption de la jeunesse boobu en tout cas vraiment. Mhm. lu ñu bare bare di remettre en en cause la kon. dama gëm ni Ousmane Sonko euh, bukki bi màtt Khalifa Sall te ma gëm ni dañu ko écarté politiquement euh, màtt Karim Wade te may itam ma gëm dañu ko écarté politiquement mhm. euh, dama gëm ni moom màttaat ki nga xam ni moom mooy Ousmane Sonko pour le moment mhm. te gis nga ba mu màttee ñële màtt na leen dara xewul mais bi mu xuree kii Ousmane Sonko gis nga ni vraiment réew mi sombre na ay guddi yoo xamante ni si kenn ku ci nekk bëggoon nga en mu gaaw jeex ñëpp ci yam nag est-ce loolu tamit Kébé nekk na loo xam ne lu raisonnable mais loolu euh, ku ne xam na ni wax dëgg yàlla mbër boo bëggee ñu nangul la sa sa sa mbër. Mhm. Euh, champion boo déggee ligue des champions bi rek boo déggee. Euh, boo gisee équipe bu ko jël ñu xam ne kii champion nga parce que ay champion ngay daan maanaam mm-hmm. euh, championnat bu ne dañuy jël champion ya fa nekk ñu indi leen mm-hmm. euh, segg leen ñu ay champion di daanu di daanu ba des ñaari champion mm-hmm. kooku ko jël ku ne xam ne ne champion ko mais champion boo xam ni yow nanguwoo woo jàkkaarloog benn sa naataango boo xam ni kii boo jàkkaarloo ak moom daan ni kii kër sa nawle la waaye di bëgg di jàkkaarloo ak ay cuuxlit yoo xam ni parce que nag moom nëbbu ci dara ah, parce que la mu waxoon ni Euh, je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression tey dafa mel ni que mën nga ni euh, ci dynamique boobu la nekk ci loolu du relu démocrate euh, un démocrate dafa war a nangu accepter di jàkkaarloo ak vraiment des candidats yoo xamante ni si nii képp koo xam ni mm-hmm. gagné nga leen danañu xam ni nag kii vraiment mérito na li nga xam ni moom la ñu ko jox effectivement mais bu fekkente ni yow en tout cas mënu jàkkaarlook benn candidat boo xam ni candidat bu bu bu nu mu tuddati la bu am yenn taxawaay la euh, dafay poser problème kon euh, tey xëy na sénégalais yi loolu lañu ñu mënta nanguwaat le fait que ñu faagaagal Khalifa faagaagal euh, Karim mm-hmm. dikk bëgg ci tegal Ousmane Sonko maanaam dafay doon élection yoo xam ni en tout cas du mais day du du du doon élection te pourtant day maanaam gis nga am ñoom dañu xalaat rek mais yàlla xam na ni yàlla bu bu bu la joxee nguur boo koo jël bu la bëggee daaneel mais ak loo mënti def boo indi woon ku kenn xamul sax bu ko bu la bëggee daaneel dalay dalay daaneel kon pour man yii yëpp mhm. euh, du solution mhm. surtout réew bu mel ni Sénégal nga xam ni mhm. euh, nit ñi léegi dañu yeewu euh, xàmmee nañ ràññee bu baax a baax a baax xàmmee nañ janj ak joor Fatima damay dëggal rek li kebe wax comme ni ko Bougane Gueye Dany waxoon rek moom nee na bu bokkee ci ay élection te Ousmane Sonko bokkul su gañee yooyu élection dañ naan li Ousmane Sonko bokkul moo tax moom nag <laughs> Euh, ne élection voilà pour nga gagné ko il faut que ay kàngam mën ci bokk ndax boo ko gañewee rek du safe mhm. moom sax loolu la wax nee su ma ko gañe tamit du safe mhm. nag Ousmane Sonko bokkul bokkul moo waral Bougane Gueye Dany daal di gagné kon juste rek pour wax que ne euh, élection yu inclusive moom mooy taaral li nga xam ne mooy démocratie réew comme ci wàllu report bi nag parce que ñu ngi gis ñu ngi koy euh, ñurum ñurumee ci suuf ba Mimi Touré sax moom àdduna ci mhm. ndax mi ngi li nga xam mooy élection fii ak deux ans maanaam fii ak mm-hmm. euh, lii ni mais warta nekk ndax président ma Sall mu warul bokk ci élection ba naan damay reporter

du bokk te ñëpp ñooy bokk ci élection après ku mën sa morom daal di duma. bien sûr daf mel loolu la Sénégal soxla mais pas ay report euh, di ko reporter pour lan. Mhm. en tout cas ñu ngi koy ruumandaat. ñu ngi koy ruumandaat ci suuf parce que maa ngi dégg ba Mimi Touré comme ni ma ko waxee ndiki démb la ci àddu mu nekk mhm. tamit loo xam ne euh, ñëpp dañ koy rafet parce que Sénégal jamono ji dafa soxla changement. Mhm. que ça soit kenn ak ku mu mënti doon moo xam au mooy jëlaat euh, nguur gi moo xam opposition moo jëlaat nguur gi mm. mais ak ku mu mënti doon sénégalais Sénégal moo soxlawaat li nga xam mooy changement mm. soxla nañ changer xoolal leneen beneen goût mais Euh, pas tamit di reporter ay élection ngir lu bëgg lu neex nit ki wala ngir bëgg naan damay defaraat réew mi wala dara réew mi fi mu nekk nii dëgg la metti na loolu wax dëgg fa ne yàlla metti na mais n'empêche nag 2024 nañu organiser élection yi transparente après voilà ñëpp mën a bokk pour que Sénégal euh, mën na jëm ca kanam voilà suñu constitution mayewu ko nangu ko aussi ndax kenn Euh, mosul euh, nangu wala mosul am fii ci réew mi ñu reporté li nga xam ne moom mooy ay élection en tout cas jamono ji lañ ci mën a wax mooy maanaam euh, ñu ngi koy ruumandaat ci suuf waaye ñu ci bari ci askan wi xam naa ne duñ ci eh, ànd mhm. te Fatima mën nañ d'accord sa ci nga reporter élection locale mhm. législative mais élection présidentielle là moom parce que élection locale yi lañ ko reporter bëri na voilà reporter nañ ko plusieurs fois mhm. buñ gisee tamit li nga xam mooy élection présidentielle moom là moom nañ ko tëgg en 2024 je crois ñu dem rek fi nga xam ne moom mooy fa la mbir mi euh, téere ku ci nekk rek ku war a doon candidat ñu bàyyi la bu ko defee nag euh, mu des rôle askan yi ñu dem xool ka nga xam ne am nañ ci ñoom confiance wala xëy na euh, jàpp nañ ne que buñ ko dénkee réew mi dina ko téye ca na mu waree bu ko defee jàmm mën a dellusiwaat ci réew mi mais jamono ji ku ne xam na ne boo waxee loo xam ne sénégalais non seulement ànduñu ci waaye sa constitution aussi ni ki noonu day daal di indi benn problème boo xam ne mën nañ ne kenn du xam fan la ñuy yóbbee après euh, ñu jógee ci loolu Kébé ñu gis ne que waa F24 euh, ñu ne sax guleet ndax dañuy gis ne que à chaque fois bu ñu bëggee amal li nga xam ne moom mooy seen ay marché wala seen ay manifestation dañ leen koy gàntal euh, gis nga 31 mai bi nga xam ne ci la ñu génn ci la ñu bëggoon amal li nga xam ne moom mooy seen Euh, contre dialogue pour jëli ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko yóbbu ko fële ca Parcelles Assainies euh, pour def li nga xam ne moom mooy seen contre dialogue ñu daal leen koy gàntal ñu gis ne que aussi euh, ni ki tey ak suba bëggoon nañu amal benn mobilisation général bu mag a mag boo xam ne ñoom nee nañ la tax ñu koy def mooy maanaam contre la dictature du président Macky Sall. waaw ñu ñu ñu gàntal ko xam nga man dama gëm ni ñi ko gàntal li ñuy def erreur bu mag a mag xamala mm. gis nga askan bu am frustration ñu am nu ñu ko bëgg a génnee maanaam pacifiquement nga xañ leen ko boo moytu mën nañ ko génne ci ci geneen anam lay lay doon moo tax euh, sénégalais yi nga xam ni tënk nañ ci F24 mhm. euh, te ñu ni dañu am li nga xam ni mooy lu leen metti lu leen naqari ci réew ñu bëgg ko génnee mhm. mais pacifiquement mhm. léegi parce que moom instant bi en tout cas xam nga tabaski gu ñuy jub seeg Euh, tabaski yi ñuy jub si ñoom fi mu ne nii bëgguñu lu lu jëm ci mbirum euh, trouble à l'ordre public nee na itam délai gañ leen ko waroon a jox. Mhm. pour ñu saytu ko itam respecté wuñu li nga xam ni moom mooy délai bi mais man dama jàpp ni gis nga F24 F24 boobu noonu tey. Mhm. nga xam ni la fa tënku ci ay kuréel instant bi boo ko doon xayma takku nañu lool. Euh, te ñoom ñëpp di ay sénégalais duñu burkina bi duñu éthiopien fii la ñu dëkk ñoom. ñu am loo xam ñu leen métti maam dañu amee frustration am lu leen métti. Euh, ci nguur gi mhm. ak doxalinam ñu bëgg ko wane léegi. Mhm. ñooñu bu ñu tànnee yoon bi nga xam ne mooy yoonu jàmm. Mhm. nga ni à chaque fois bu ñu ko bëggee wane ah en tout cas nee nañu bu tay bu tay bi la ñu tere mais bu suba bi xëy na. Euh, Euh, mm-hmm. bàyyi nañu ko. Mm-hmm. mais gis nga ñooñu li ñu li leen metti bu ñu ko génneewul euh, librement et pacifiquement euh, mën na génne ci anam goo xam ni su moytul du neex wul moo tax ma gëm nii préfet bi tey mën instant bii nii. Mm-hmm. képp ku fare ci kuje gi. en tout cas lépp loo manifestation boo jàpp walla rassemblement boo jàpp. ñu xoo ñu xam ni lii nii amul lenn lu mu mën a joué dañ ko war a dañ ko war a bàyyi ñu ñu wane ko en tout cas ci anam ji mu gën a instant bi xoolal kilifa yu baree bari fi mu ne nii boo heure bi daan jot lenn moo leen di stress mooy xaru tabaski mais fi mu ne nii. Mhm. ñëpp fi ne nii Sénégal la ñuy tal. jàmm mhm. Sénégal parce que nag tabaski moom li muy nekk nekk feet li muy neex neex neex ci mhm. jullit ñi. bu àndul ak jàmm. googu tabaski kenn du xam lu muy nirool fi mu ne nii xar yi seeraay yi li muy cher cher gis nga sénégalais moo dàq dàqoon a jàmbat mais fi mu ne nii déglul déglul defal tournée média yi nga xool heure bi daana fekkee sénégalais bu ne di jàmbat di wonk naan yii nangam nangam mais léegi fi mu ne nii presque wallaay doo dégg kon nga xam ni vraiment sénégalais yi mhm. ndeke ñu bëgg jàmm lañu mhm. te ñu jàmm itteel lañu mais effect effect effectivement ko mhm. parce que instant bii ni ñoom ñëpp loolu moom moo leen daan moom moo leen daan yitteel am na ci ñoo xam ni tey euh, xar ni mu chéré jamono yi nga xam ne yenn xar yi boo ko bëggee lu mu néew néew néew da génne deux cent mille francs di ñeent fukki junni ci sa poche ah. pour man koo am mhm. tey bu ñu demee ba boroom kër yi faaleetuñu sax loolu di wut jàmm kon ça veut dire que euh, vraiment jàmm daal lu ko waay jënd jar na ko euh, te jàmm itam